ngeen mayaat pël bi daal pël bi daal heure bu xëyee rek ne day wayaasi benn bis pël bi dem wayaasi dox ba da côté Daara jof rek at bu këpp nu mu këpp gaa yëpp faatu ba mu des mel moom mu jaawalee daalam ak kokati jigéen gi sol ko sapeur ñëw jël ñëpp ni mu jëlee ñëpp wàcce ko fa ne ne pël bi daal dara ji dara jotu di dem rek mu jóg ak capp bi rek naan boole leen ma bàyyi dinaa laagu de booy boo ngeen bañ ba fee bàyyi sapeur de xool ko gis ko mu sol ko ñu ne ko yow la ësul bi sama weewu moo benn bi nag dama leen may. ab paaloon ak doomam ak yaayam ak ak gan gan gi daal heure bu ñëwee lekk ba suur heure bu ñëwee lekk ba suur benn bis mu ñëw lekk bay ba wéere daan na tuut doom ji jug yuux la waay gan ko dox na papa jàpp dóor ba mu bëgg a dee bis des mu ñëwaat na tuut mu ne ko sa doxut daaw li mu si daj boo doon day sax du ma la faale waaw asalaamaaleykum.